ci wàccaayu tabaski bi si màkkaanam bi nekk si Touba 28 soxna maam Xari Mbàkke moom Serigne Mourtada yëkkati lu tàkku si ay enveloppe jébal ko secteur d'activité yenn yi nekk si Touba ak ñu koy jàppale si wàllu politique ak tamit lenn si ay militangu APR. loola nag la ca jiitu la ca jiitu tey soxna si bi mu ñëwee def na benn liste bu am solo list yooyu danañ lim seeni tur ndax ñooñu tamit ay ñayu xare lañ ci terrain bi. ñu juutal ci les communicateurs traditionnels ñooñu ñooñu yàgg nañ ñoo boole ci ay mbir amul luñ fi def te buñ ci duggut du sotti luñ def boole ci mais c'est la première fois que lu mel nii am ngay def ay aide sociale ñu jëm tabaski mu des trois jours nga ni communicateurs yi laay njëkkee loolu day la sa maam defoon moom nga indiwaat jërëjëf les communicateurs biñ si jógee euh, am na gone yoo xam ne ñoom ñooy alu dakaar yi nga xam ne dañuy jële nit ñi fii léegi yombal transport bi dañoo am benn mouvement boo xam ne ñoom dañoo booloo nekk benn alu Dakar yi soxna si tamit nee na dina leen jàppale am na jeunesse boo xam ne tamit moom la ñuy wax jeunesse wax sa xalaat mooy ñi nga xam ne dañuy dugg si rajo yi di wax di défendre dëkk bi bu dara jëm see ñu wax ko ci dëkk bi loo xam ne jaaruwut ñu dugg si rajo yi wax pour wane ne Touba am na taxawaay beneen bu dul boobu ndax am na ñoo xam ne loo baax baax ñu jim laa yàqal. moo tax gone yooyu tamit nee nañ danañ leen jàppale. ak sareetier yi ñi nga xam ne ñoo yore wàllu sareet yi ci dëkk bi gone yi nga xam ne dañoo yore ay sareet di dawal ci dëkk bi. te kenn ku ne xam ne ñooy transporter nit ñi tamit soxna si nee na dina leen jàppale. ndaje bi am na ay kuréel yu bokkoon si parti démocratique sénégalais ñu mën see nemmeeku ay meeru mbootaay ñu si mel ni Fatou Dieng Nogay Bey bu sa Diouf Ndeye Ndiaye Naar Fari Kayra Ndeye Dem Gas Kanji ak ñeneen ak ñeneen ñoom ñëpp nag jël kàddu wax ni kat bis ni ki tey dakkal nañu seen activité fas yéene ànd ak soxna maam Xari Mbàkke moom Serigne Mourtada jàppale son excellence président Macky Sall. la nga waxoon ca commune rurale wax boobu day dëgg ndax ba nga ñu wooree tàmbali ci développement social bii defe naa booba juróom-ñaari nit lañ woon nga nga dogu la nga dogu ñëpp xam ne day dëgg nga ne lii may lii may tàmbali bu fekkee lu sama maam ak ànd la yàlla naa ci am ndam bu fekkee sama maam àndu ci li bëgguma liggéeyal taalibe mi ci dëkkam bii yàlla naa ese yaakaar naa kon yow li nga doon def sama ànd na ci ndax ku fekkee woon jataayu commune ba fekke bii tey di nga xam ne yaa sama am ànd na ci li ngay wax day dëgg ci yow ñun nag fan ne woon rek ñoo nga fa du ñuul di weex duñ jàpp di bàyyi duñ xam di fàtte fan ne woon rek ñoo nga fa nu sensé ak keneen ku baax ko nu mën a indi it dinañ ko indiwaale rek. ba Ablaye Wade faloo ba léegi moom laa xam man mosuma watal kenn ku dul Ablaye wàdd ci àdduna a ah, jéem nanoo bi Ablaye waa Macky Sall ñëwee jéem nanoo jéem indi ñu ci euh, ci waaye man dama bañoon ne duma dem APR. waaye nag joote moo jiitu ndax soxna si dana dëkk ak moom ci dëkk bi mu def na mu doon kilifa wàcc ba tolloo ak noonu moo tax fu mu nu woo Mbàkke rek dan ko bu ñu neexee ak bu ñu naqaree dañ ko wuy ji dañ ko jàppale Macky Sall dina xam ne nag mi ngi doo ko jox pouvoir borom dëkk bi mi ngi ko doo ko jox ko ko moom bu soobee yàlla lu mu ci doon am ci ay ele ay électeur booy boobu tëddee na nelaw bu fekkee ne jiital na soxna maam xëri ci Touba Mbàkke mu di ko liggéeyal bu waay boobu mu tëddee mu nelaw ne li mu fi bëgg lépp dara ko fi am ci barke borom Touba. soxna maam Xarim Mbacke dajale na fi tey ACPDS yëpp soxna maam Xarim Mbacke dafay ñëw fii yëkkati femme de développement. musuma taxaw wax ci APR musuma jëm ci APR PDS rek laa woon waaye nag soxna maam Xarim Mbacke dañoo ànd ci femme de nga dimbale ay jigéen yóbbu ay jigéen màkk ñu siyaar yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam te sa yéene jooje bëgg nga koo yeggale kon ñaan ci ñaan sa kàttanul maam yéene jooje nga bëggoon a yeggale yàlla na ko yeggale ci APR dama ne. wax ji bari na coono bari na waaye jëf rek kay dëgg yaa doon yàlla fekkeloo élection yu ñu jëm élection yi ñu jëm yàlla bu kenn manqué yàlla nañu ko fekke kon ngeen xam ne garab gi dañ koo jaar te datt ba jaru ko ca car ba dañ ko daan jaar ci car ba tey ci datt ba ko jaar jërëjëfati sëf Serigne Touba waaye tey bi nga wootee fekk ma APR bu ma fekkoon feneen di damay ñëwaat ci yow ndokk yàlla nag bi ma fekkee ma nekk APR ndax yow defal nga ma loo xam ne mënuma la koo fay defal nga ma loo xam ni mënuma la koo delloo te laajoo ma ko lebaloo ma ko danga ma ko jox ngir yàlla kon nag yow Mbàkke foo ma woo ma wuyu la suba ba ngoon jot ku ma xam dinaa la ko indil ku xam bu ma xamee ku baax dinaa la ko ñoddil ba ci yow su ma xamee lu rafet dinaa la ko wax su ma xamee koo xam ne dina la mën a dimbali jàppale la ba li ngay wut nga am ci ndam dinaa la ko indil. bi mu jëlee kàddu moom mii di soxna maam xari Mbàkke moom Serigne Mourtada ne leen moo ko itteel fexe ba njiitu réew mi gagné en 2019 si élection présidentielle ya jàpp na nag lii mooy waral loolu mën a am. kon nag dama bëgg ñu ànd fas yéene ànd ak waa APR e yi nga xam ne ñoom lañu fekk ci dëkk bi. fas ne liggéey ci dëkk bi ndax damay wax ne que euh, mbooloo lu mu bari bari coow li lu mu bari bari nanu liggéey ndax liggéey mooy tax bu ñu demee ba euh, bisu élection yi ñu mën a am résultat. di fàttali soxna maam Xarim Mbàkke wàcc na si wàllu politique bi waaye nag di boole développement ak lii nga xamante ni mooy wàllu politique nee nag ubbi na buntam ngir képp koo xamante ni victoire moo lay itteel ngeen àndandoo si mission bu ni mel.